asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan ñu dellu nuyuwaat leen gërëm leen sant leen si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi koy ànd ak QTV ak Q téeméer ak ñetta yu toppal ñetta ak ñi ne saa su nekk ñu ngi ñoo bàyyi xel si social media bi ñu andi leen xibaari digg bëccëg bi ngeen ànd see seen doomi ndey Linguère Bassène Lo gannaaw nemmeeku bi nga xam ne nag moom président Adama Barrow nag mu ngi ko doon def daa mel ne nag samedi bii ñu génn. teewoon na foofu nga xam ne nag mooy Fogny gannaaw nag bu mu àggee sa béréb boobu noonu taxawal na fa ab lopitaan boo xam ne lu toll si ñeent fukki diwaan nag ñoo koy jëfandikoo foofu noonu sa Fogny ba tey moom président bi nag bu mu noppee si boobu la nag continuer am ab waxtaan boo xam ne nag mu ngi ko doon am ak ñi nga xam ne nag ñoo toog foofu noonu sa Fogny ak lu ko wër ba tey dañoo desandi si président Adama Barrow gannaaw bi nga xam ne nag mbooloo bu takku génnoon nañ foofu noonu sa Brikama lii nag tax na président Adama Barrow ni ki dimanche bi ñu génn nag taxawaloon na nag lu jëm si ñaari lopitaan yoo xam ne nag askan yi dëkk foofu noonu sa Brikama ak li ko wër dinañ ko mun a jëfandikoo pour rek yombala leen bu ñuy nekk si wàllum wérgu yaram gi ba tey si biir xibaar yi di ngeen dégg ñaari nit ñoo xam ne nag jàpp nañ leen nag lu jëm si wàllum ganja ñii naan ko tay ak bëri tur ñii naan ko drogue ñii naka ñu jàpp kenn ki sénégalais la waaye ba tey it kenn ki nag mu nga bàyyeekoo sa réewi Angleterre jamono yi nag ñu ngi si loxo police yi ñu leen di jàppale mbokk yi ak yeneen xibaar si gannaaw ba ak wi lay doon ñu andi sab yaatal mbokk yi comme ni leen ko junjalee si boppi xibaar yi gannaaw bu ñu gis ne nag lu jëm si wàllum wér-gu-yaram gi nag mu ngi tasaaroo si biir réew mi tax na nag foofu noonu sa biir kaama moom président Adama Barrow nag ubbi na fa ab béréb boo xam ne nag askan gi di dinañ mun di dem di fajoo foofu noonu ñi nga xam ne nag ñoo fa mun a fajoo ji wala duwaay ñi nga xam ne nag war noon ñoo mun a fajoo ji si boobu la béréb tollu neen si ñeen fukki duwaañ ba tey moom président Adama Barrow bu mu noppee sa loolu foofu noonu sa fooñi dem na si ab béréb bi ñu xamee Mayok pour naka am fa ab jotaay waxtaan ak askan gi naka lu jëm si yokkute réew mi. Tampoto moom naka ab dëkk boo xam ne naka mu nga foofu noonu sa fooñi foofu naka la ñu ibbi ab béréb bu fajeekaay boo xam ne naka lu toll si ñeen fukki duwaañ naka dina mun a dem jëfandikoo naka booba la béréb gannaaw bi nga xam ne naka yàgg neen di joytu ab béréb bu fajeekaay foofu noonu seen dëkk bi. ay Aysatu Biyaay nag mu ngi wane nag taxawaayu nguur gi tey it mu ngi wane tamit kontaanteem gannaaw bi nga xamee ne nag am nen bërëb boo xam ne nag dinañ fa mun a dem di faju rawatina ñi nga xamee ne nag ñoo dëkkee si diwaan yooyu noonu ndax mbir mi nag doon la loo xam ne nag yàgg neen di ko jooytu ndax nag bu ñëwee si wàllum faju doon na mbir moo xam ne nag ay jafe-jafe yoo xam ne nag ñu ngi ko doon jànkuwanteel waaye ak li leen président bi defal foofu noonu doon na mbir moo xam ne nag dinañ ko njëriñoo te it ñu ngi gërëm kii nga xam ne nag mooy président Adama Barrow. gannaaw nag bu mu leen andilee bërëb bu fajokaay bi si seen dëkk googu noonu ba tey ministre bi nga xam ne nag moom leen dénk wàllum wérgu yaram gi di uyoo si docteur Amadou Samate moom nag dellu na gërëmaar ki nga xam ne nag mooy président Adama baro ak nguuram waaye tamit di gërëm ñi nga xam ne nag ñooy UNICEF si taxawaay bi nga xam ne nag ñu ngi koy taxawu gouvernement bi wala nguur gi pour rek ñu mun a samp yenn bërëb bu fajokaay yi si biir réew mi. gannaaw bu ñu ko jébalee kàddu gi moom président Adama Barrow andi na ab leeral nag si nguur gi maanaam jëf ji nga xam ne nag ñu ngi koy jëf si jamono wi ñu toll rawatina nag bu ñëwee si wàllum wérgu yaram gi nee na nag ñoom dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba gis na nag wàllum wérgu yaram gi fii si réewi Gambia nag kenn du ko joytuwaat gannaaw moom président Adama Barrow nag bu mu gaaralee yile kàddu si booba la na leen li nga xam ne nag mooy ambulance boo xam ne nag booba la béréb dinañ ko mun a jëfandikoo gannaaw bu président Adama Barrow nag bàyyeekoo si bérébu fajokaay yooyu noonu nag àgg na si ab dëkk bu ñu ñoo ko fa nekkoon di xaar pour rek mu mun a waxtaan ak ñoom lu jëm nag si wàllum nguur gi. ñi nga xam ne nag ñoo bàyyeekoo foofu noonu sa Foni Garol ak Foni Bondali ak Kansala nag ñu nga teewee woon nag booba la meeting ñoom nag bu ñuy waxtaan ak ki nga xam ne nag mooy président Adama Barrow li ñu ko xamal nag ne moo leen soxal si jamono bi la nag mooy yoon yu baax yoo xam ne nag dinañ ko mun a jëfandikoo ak nag lu si wàllum courant ak ndox bu set ak yeneen i mbir yoo xam seen dëkk yu ndaw yooyu noonu moom président Adama Barrow gannaaw bu mu jëlee kàddu gi nag pour waxtaan ak ñi nga xam ne nag ñoo fa teewoon wax na leen nag bu neexee yàlla si atum 2023 dina gis ne dëkk boo xam ne nag mu ngi si biir réewi Gambia dinañ jëfandikoo courant gi waaye nag du yem si loolu dina gis ne nag seen yoon yi nag dina doon a béréb yoo xam ne nag dañu koy defaraat maanaam mu doon yoon yu baax yoo xam ne nag dinañ ko mun a njëriñoo. gannaaw bi nga xam ne nag jox neen ko ñaareeli mandat nag pour mu mun a yóbbu réewi Gambia gannaaw bu président Adama Barrow waxtaanee ak askan gi nag dellu na def yim daan def si yeneen dëkk yi rek maanaam fu mu dem nag taxawal fa ab lopitaan dina fa joxe li nga xam ne nag mooy ambulance waaye ba tey dig na leen am na leneen loo xam ne nag mu ngi si yoon bi di ñëw ba tey moom président Adama Barrow balaa moo daaneel ay kàddoom dig na ñi nga xam ne nag ñoo fa teewoon ne na dina leen jàppale si ab machine boo xam ne nag dina leen yombalal seeni liggéey mbokk yi comme ni leen ko jungalee si boppi xibaar yi moom président Adama Barrow ni kii dimanche bi ñu gën a nag bu mu àggee foofu noonu sa biir kaama taxawal na nag foofu ñaari béréb yoo xam ne nag dinañ ko jëfandikoo bu ñëwee nag si wàllum faju gi tànn neen ñaari béréb yoo xam ne nag dina nekk bérébu fajookaay bokk na si Brikama Nyambay ak Brikama Wéringara ñaari béréb yi yëpp ñu nga foofu noonu sa West Coast Region gannaaw bi nga xam ne nag teew neen si ñaari bërëb bu fajokaay yi nag bàyyi neen bërëb bu nekk ab ambulance ministre bi ñu dénk wàllum wérgu yaram gi di uyoo si Amadou Lamine Samate moom nag andi na ab leeral ne bërëb bu fajokaay yi nga xam ne nag tànn neen ko maanaam di Brikama Ñambaay ak Brikama Wéringara doon na ñaari bërëb yoo xam ne nag dina njëriñ ñi nga xam ne nag ñoo dëkkee si boor boobu noonu ndax boo ko seetloo askan bi nga xam ne nag ñooy yeewoo foofu noonu sa Brikama Wéringara ak Brikama Ñambaay tollu neen ñaar téeméeri junne téeméer lii nag moo waral ñu sampaleen ñaari bérébu fajokaay boo xam ne nag dinañ ko mun a jëfandikoo ndax lu ëpp si ñoom nag dañuy faral di dem si biir kaama seen bérébu fajokaay bu mag bi waaye nag am nañ yaakaar ne ñaari place yi nga xam ne nag ubbi nañ ko foofu noonu sa biir kaama ñambaay ak biir kaama wéringara dina tax na nag askan gi dinañ wàññeeku si lu ñuy dem foofu nga xam ne nag mooy kama sen lopitaan bu mag bi fu mu nekk nag ak ñaari lopitaan yi dinañ mun a tasaare seen bopp si yooyu la sa kera bés ba ñi nga xam ne nag ñoo fa teewoon nag gërëm nen kii nga xam ne mooy président Adama Barrow si jàppale bi nga xam ne nag jàppale nañ leen ko bu ñëwee nag si wàllum wérgu yaram gi Jaliba Kuyate moom nag ab béykat boo xam ne nag ràññee nen ko fii nii si réewi Gambia te it mu doon ab kilifa boo xam ne nag mu nga toog foofu noonu sa biir ma Ñambaay wane na ab kontaanteem si ki nga xam ne nag mooy président Adama baro ak i nguuram gannaaw nag buñ leen sampalee ab bérébu fajookaay boo xam ne nag dinañ ko mun a jëfandikoo ba tey moom woykat bu mag bi xamee si Jaliba Kuyateh nag wax na ne gannaaw bi nga xam ne nag moom président Adama Barrow toog na nag ba am fii lu toll si ñeneenti at li nga xam ne nag def na ko nguur yi nga xam ne nag toogoon nen fii lu toll si fanweeri at nag kenn defu ko si ñoom. lii na tax na mu ngi gërëm kii nga xam ne naka mooy président Adama Barrow si liggéey bi nga xam ne naka mu ngi koy def fii nii si réewi Gambia rawatina ñoom ñi nga xam ne naka ñoo toog foofu noonu sa biir kaama ñambaay ba tey moom président Adama Barrow naka indi na ab leeral comme ni mu ko waxee woon naka si yeneen béréb yi ne naka dina continuer di jàppale nguuri Gambia rawatina naka bu ñëwee si wàllu wérgu yaram gi te it boo ko seetloo ñoom naka taxaw ne naka lu jëm si bérébu fajokaay yoo xam ne naka toll neen si juróom fukk fii si biir réewi Gambia ba tey sa ndaje boobu noonu nag andi neen ab leeral ne nag lopitaan bu gën a mag si lopitaan yi nag dinañ ko sampa foofu noonu sa faaraato pour rek mu doon ab béréb boo xam ne nag dañu fay jàngee nag lu jëm si wàllum wérgu yaram gi gannaaw bu ñu ko sampee nag ba noppi am neen yaakaar ne booba la béréb nag dinañ fa dugal lal bu toll si junne ak juróomi téeméer ba tey sa booba la béréb ñi nga xam ne nag ñoo toog foofu noonu sa combo is Brikama North and South gannaaw bu ñu dajalee seen bopp nag ba toll si ay junne junne nit li nga xam ne nag ñu ngi koy ñaax président Adama Barrow mu yokkal na nag lu jëm si wàllum courant ndox ak yoon yu baax ak yeneen mbir yoo xam ne nag dina indi ab yokkute si seen béréb yooyu noonu. gannaaw loolu nag moom président Adama baro nag ndaje bu mag bi nga xam ne nag amoon nako ko foofu noonu sa Brikama nee na la nag seen problème bi nga xam ne nag ñu ngi koy jooy lu jëm nag si wàllum courant ak ndox ak yoon. rawatina sax li nga xam ne nag mooy yokkute boo xam ne nag bëgg nañ koo am si seen béréb boobu noonu dina doon mbir moo xam ne nag dina si taxaw ba gis ne nag ñu toog foofu noonu sa West Coast region nag am nen yooyu ñuy jooy ndax yile mbir yëpp bokk na si ab xelaatam pour nag mu defar Banjul ak li ko wër ba tey moom président Adama Barrow nag leble woon na foofu noonu lu tollu si ñaar yu toftal ñaari millions yi dalasis pour lebal ko mbootaay jigéen yi nga xam ne nag tollu neen si ñaar fukk ak ñeneent te it ñu toog foofu noonu sa biir kaama ak li ko wóor pour rek doole leen si wàllum business yi nga xam ne nag ñu ngi see yëngu booba la béréb nag moom président Adama Barrow nag dellu na joxe waat foofu noonu nag ab ambulance boo xam ne nag askan gi nga xam ne nag ñoo nekk si bérébu fajokaay yi nag dinañ ko jëfandikoo président Adama Barrow nemmeeku bi nga xam ne nag mu ngi koy nemmeeku askani réewi Gambia si jamono bi le fu mu nekk nii nag dina continuer dem si dëkk bu ñu xamee si jàmbur mu doon ab béréb boo xam ne nag jotaay bi dina fa continuer ne. mbokk yi ba tey ñaari nit yoo xam ne nag jàppane leen foofu noonu sa brousse bi tranquille ñoom nag ñu ngi leen jàppee lu jëm nag si wàllum drogue wala taay bi wala sax ganja bi ak body tour waaye ba tey jamono yi ñung ngi nag si loxo police yi ñu ngi leen di gën a jàppale nag pour gën a gëstu bi leen mbir nag nu mu demee ba ñu jàppale nag si drogue yi ñaar ñi nga xam ne nag jàppaneen leen nag lu jëm si wàllum ganja gi kenn ki nag am ndaw boo xam ne nag mu nga dëkka foofu noonu nag réew yi Angleterre di uyoo si di yoon Washington moom nag ki nga xam ne nag mooy naataangoom bi nga xam ne nag moo ko fi toogal di uyoo si Abdou Majid Baldé nag moom ab sénégalais la ñoom nag si jamono bi dañu taxawal ab mbootaay buy uyoo si Hands on Africa maanaam ab loxo yoo xam ne nag dañu ko tëral rek pour jàppale ñi nga xam ne nag ñooy african si waaye ba tey ki nga xam ne nag mooy Leon Washington ak ki nga xam ne nag mooy Majid Balde doon neen ay nit yoo xam ne nag gannaaw bu ñu leen jàppee si li nga xam ne nag mooy taay bi nag ñu ngi dikk foofu noonu sa Bruce bi tranquille waaye nag dañuy jaay li nga xam ne nag mooy ay xaj police yi maanaam ñi nga xam ne nag ñooy yëngu si wàllum drogue bi ñoom nag andi neen ab leeral si kii nga xam ne nag mooy Leon Washington ak kii nga xam ne nag mooy Abdul Majid ñoom nag wax ne ne ñaan ñi nag li ñuy jaay mooy ay xaj foofu noonu sa brousse bi waaye nag dañoo mbubboo xaj yi le ndax boo ko seetloo si ron li nga xam ne nag moom la ñuy jaay nag mooy taay gi waaye ba te it andi nañ ab leeral na foofu noonu sa brousse bi ñu fa jënda ab béréb bu mag boobale béréb nag ñu jënda defuñu fa dara lu dul nag ji fa ay taay yoo xam ne nag askan gi ñu ngi koy jëfandikoo te it bu ñu ko seetloo jumtukaay yi nga xam ne nag moom lañ dee faral di jëfandikoo pour rek harvest yi le taay naka jamono yi naka ñu ngi ko fekkoon ñooñu noonu naka seen béréb boobu noonu te it yi le taay naka bu ñu ko jaayee wax ne ne naka ay millions yi millions yi réew mi rek leen dee si booba la mbir naka bokk na si ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si béréb bi nga xam ne naka ñoo amee wàllum cannabis bi wala ñoo amee wàllum drogue bi si biir réew mi moom nag wax na ne moom ak ñi nga xam ne naka ñooy naataangoom yi nga xam ne naka ñu nga toog foofu noonu sa West Coast Region naka yàgg neen di toppa bile mbir ki nga xam naka mooy seen PRO nga xam ne nag moo amee seen kàddu yi ñoom ñi xam ne nag ñooy liggéey si buntu bi nga xam ne nag ñoo amee wàllum drogue bi di uyoo si Seydiba moom nag wax ne mu ngi oo askan gi rawatina ñi nga xam ne nag ñooy Gambian si ñu bokk ak ñoom nag xeex li nga xam ne nag mooy drogue bi si biir réew mi Seydiba continué na nag di garal ay kàddoom nee na nag jàmba yi la nag bu àggee si marché bi nag ba suñu ndaw yi commencé nag di ko jëfandikoo dina doon mbir moo xam ne nag dina indi ab yàqute si bi réewi Gambia gannaaw bi nga xam ne nag ñu ngi enquête bi leen mbir rawatina kii nga xam ne nag mooy Leon Washington nga xam ne nag moo bàyyeekoo sa réewi Angleterre compagnie bi nga xam ne nag moom leen laajte mbiram ñoom nag andi neen ab leeral si kii nga xam ne nag mooy Leon Washington di wane ne nag moom mu ngi juddu si atum. 1986 te doon na ni koo xam ne naka ab directeur la boo xam ne naka dañu ko jiital si ab compagnie foofu noonu sa réewi Angleterre ñoo ko gën a xamee compagnie boobu noonu si L&H te naka ñu taxawal ko si atum 2016 waaye naka ñu tasaare ko si yenn si béréb yi naka si weerum agost 2021. waaye ba tey indi neen ab leeral moom ki nga xam ne nag mooy Leon Washington doon na ni koo xam ne nag moom jamono bi jàmba bi nga xam ne nag moom la muy jaay moo gën a tàng si jàmba yi nga xam ne nag ñu ngi koy jaay si biir réew mi maanaam doole bi nga xam nag moom drogam bi am na ko moo ëppa yi nga xam ne nag xale yu góor yi wala xale yu jigéen yi sax ñu ngi ko doon jëfandikoo si biir réew yi Gambia ba tey ñi nga xam ne nag amee wàllum drogue bi si biir réew yi Gambia ñoom nag ñu ngi enquête bi leen mbir gannaaw bi nga xam ne nag ñu ngi jàppa ñaar ñi nga xam ne nag tuumal nañ leen nag jëm si wàllum cannabis mbokk yi ba tey ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum tasum xibaar gi si biir réewi Gambia ñoom nag tànne neen ñaari fani ndaje yoo xam ne nag dañu koy def pour tàggat ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum koppar bi nga xam ne nag ñu ngi si biir réew mi waaye nag di liggéey ak ñi nga xam ne nag ñoo yëngu si wàllum tasum xibaar ñaari fan yi ndaje yi nga xam ne nag am nañ ko ñi nga xam ne nag ñoo leen dooleel si bile mbir mooy ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum tasum xibaar si bi réewi Gambia Maam Binta Njaay moom nag programme officer la foofu noonu nag si GPU wax na ne ñaari fan yi ndaje yi nga xam ne nag am nañ ko pour nag tàggat leen lu nag si wàllum ni ñuy toppatooyee koppar yi nga xam ne nag mu ngi dugga bu ñëwee nag si wàllum tasum xibaar doon na mbir moo xam ne nag dina leen njëriñ te dina indi ab yokkute si fànn boobu noonu général bi di uyoo si Buuba Faati moom nag wax na si jamono bi yi ñi nga xam ne naka ñoo toog si néeg boobu noonu doon ne nit ñoo xam ne naka amun benn xelaat pour rek naka la ñuy toppatooyee ab koppar bu ñëwee naka si wàllum koppar boo xam ne naka ñu ngi koy jox ñi nga xam ne naka ñoo amee wàllum tasum xibaar gi si biir réew mi waaye nag am na yaakaar ne tàggat bi nga xam ne naka jamono yi ñu ngi leen koy tàggat lu jëm naka si wàllum koppar dina doon mbir moo xam ne naka dina leen njëriñ lii naka tax na ñu tànn yi la ñaari fan naka pour jàppale askan gi pour rek ñu mën a am ab bu ñëwee naka si wàllum koppar yi nga xam ne naka ñu ngi koy am si seen béréb booba noonu ba tey it keneen gara na fa kàddu di uyoo si Abdou Latif Fati moom nag wax na ne am na yaakaar ne ñaari fan yi tàggat yi nga xam ne nag ñu ngi koy def si jamono bi dina doon bir moo xam ne nag dina indi ab yokkute bu ñëwee nag si wàllum koppar bi nga nag dinañ koy faral di am waaye ba tey mu ngi ñaax képp koo xam ne nag ñëw nga fekkee yile ñaari ndaje boo àggee nag nga tasaare yile xibaar nag si ñi nga xam ne ñooy say morom yi nga xam ne nag ñoom it ñu ngi yëngu lu jëm nag si wàllum tasum xibaar si biir réewi Gambia pour rek ñu mën a am ab xelaat bu ñëwee nag si wàllum koppar bi nga xam ne nag dinay dugal si ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum tasum xibaar si biir réew mi gannaaw bi nga xam ne nag ñu bëri ñoo dajee nag si bi leen daje nag pour mun a tàggat seeni bopp nag lu jëm si wàllum koppar bi nga xam ne nag ñu ngi koy jëfandikoo si biir réew mi am neen yaakaar ne ñaari fani ndaje yi nga xam ne nag am neen ko dina tax nag jamono yi bépp koppar boo xam ne nag mu ngi dugal si boobara béléb ni ñu koy bindee ak ni ñu koy toppatooyee bi nga xam ne nag dina leen yóbbu fu sori yi ba tey ñi nga xam ne nag ñoo teewe woon si keroog bis ba te bàyyeekoo si yeneen média yi am neen yaakaar ne bu ñu delluwaatee si yooyu le béréb nag dineen tasaare li nga xam ne nag moom leen jàng si keroog bis ba mbokk yi ba tey lu mujj si boppi xibaar yi ni ki londi bi ñu génn ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum pileen gi si biir réew yi Gambie ñoom nag am nañ ab ndaje di waxtaan nag lu jëm si at yi nga xam ne nag moo passé rawatina nag si at yi ñuy dugg si pour rek eeleen lu jëm nag si seen wàllum liggéey waaye tamit waxtaan lu jëm si feebari mbas bi ñu xamee si coronavirus jafe-jafe yi nga xam ne nag andiloon na leen ko. ki nga xam ne nag moo ubbi jotaay bi nga xam ne nag mooy seen directeur général bi di uyoo si Fansou Bojang moom naka wax na ne semaine bii ñu tànn nag pour gëstu lépp loo xam ne nag mu ngi aju lu jëm nag si wàllum pileen yi nga xam ne nag ñu ngi si biir réew mi doon na mbir moo xam ne nag dañu koo def pour yee askan gi rawatina seen bérébu liggéeykaay googu noonu si liggéey bi nga xam ne nag ñu ngi koy def si biir réew yi Gambia waaye ba tey dineen seet ay jéego yoo xam ne nag dineen ko lar pour aar leen si seen liggéey bi nga xam ne nag ñu ngi koy def foofa noonu waaye ba tey it mu doon ab semaine boo xam ne dañu fay waxtaanee lépp loo xam ne nag dina njëriñ ñi nga xam ne nag ñoo nekk si béréb boobu noonu rawatina ñi nga xam ne nag ñoo yëngul lu jëm naka si wàllum plane yi nga xam ne naka mu ngi wàcc si béréb boobu noonu waaye ba tey dinañ seet naka la leen di jàppale si seen liggéey bi nga xam ne naka ñu ngi koy def si jamono bi lee ki nga xam ne nag moo fa toogaloon seen directeur général bi foofu noonu sa GIA di uyoo si Omar Cissé moom nag ab senior station manager la wax na ne jamono yi tàggat binga nga xam ne nag ñu ngi koy am si boobala béréb doon na mbir moo xam ne nag dina leen jàppale ba tax na képp koo xam ne nag mu nga teew si boobala béréb ne loo xam ne jamono yi ñu ngi ko fay waxtaanee maanaam training bi nga xam ne nag ñu ngi koy am si jamono bi le ñi nga xam ne nag ñoo fa teewee ñu njëriñoo ko. Catherine Nying moom naka doon na ni koo xam ne naka mu nga doon liggéey foofu noonu sa si lu yàgg lool waaye naka jamono yi naka dafa noppale ko maanaam dafa ritaya si loolu nga xam ne naka mooy liggéeyam bi waaye naka moom doon na ni koo xam ne naka moo taxawal bile mbir pour gis ne ñi nga xam ne naka ñoo amee wàllum plaine gi si biir réewi Gambia at bu nekk naka dineen toog suy benn yoon sax si semaine bi pour waxtaan ab yokkute yoo xam ne naka war neen koo mën a am si seen boobala béréb ba tey moom Catherine nag mu ngi gën a indi ab leeral ne bile mbir nag dañu koo def rek pour kenn ku nekk nag si béréb bu liggéeykaay googu noonu am solo bi nga xam ne nag boobale béréb am na ko solo rawatina nag bu ñëwee seen wàllum kaaraange gi. waaye ba tey di xamal ne bile mbir maanaam opération yi nga xam ne nag mu ngi am si boobale béréb war naa doon mbir yoo xam ne nag day continuer fii nii si biir réew mi. gannaaw bu nga xamee ne nag am na ay yàqute yu mag yoo xam ne nag amoon na si biir réewi Gambia ngir feebari mbas bi yu xamee si coronavirus tax na ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum plaine bi fii si réewi Gambia ñu ngi ñaax nag pour ñu jàppale leen ngir nag mbas bi ñu xamee si coronavirus jafe-jafe yi nga xam ne nag andil na leen ko sa béréb boobu noonu. suñu waxtu mayoon ñu ngi leen di gërëm di leen sant si ànd bi nga xam ne saa su nekk yeneen koy ànd ak QTV Q radio di téeméer ak ñett yu toftal ñett ak ñi nga xam ne saa su nekk ñu ñoo bàyyi xel si social media bi ñuy gërëm ñi nga xam ne nag ñoo woon si waaru machine bi ak ñu jàppoon si xibaar yi ba mu sotti ginnaan laaw buur bi mu jégal ñu suñuy bàkkaar musal ñu si musiba ak bala jërëgeen jëf ba ëllëg si benn waxtu gi incha allah ñu yendoo jàmm